Música mbokk yi seetaan Public TV ñoo ngi leen di sant di leen gërëm tey ñoo ngi fii nga xamante ne mooy place de l'Obélisque comme ni ngeen leen comme ni ñu leen ko waxee ñëw fekkee rassemblement bi nga xamante ne waa société civile ñoo ko woote. ñu woote ko ngir wax ne que ni justice na def liggéeyam ndax xaalis bi nga xamante ne dañ ko luubaloon mu génn ci xam te mu jóge ci xaliss bi nga xamante ne dañ ko jagleloon Covid 19 ñu ñew xeex ngir nit ñi delloo ngir justice ci def yu liggéeyam ndax xaliss bobu non ñi ko lekk ñu delloo ko tey ñoo ngi fi and ak yeen fas leen ak yeen wol leen li nga xamante ne moo xew fi ci place de l'Obélisque mbokk yi ñu nak yeen ba affaire bi nga xamé ba kéro rassemblement bi di paré asi ay jigen lañ ñoo takku ba dëgër jóg taxaw ya ngi dégg Jokal Gatir, suñu milliard bu rees c'est les défenseurs Sonko. Thank you. ça va lan la fi indi tey suñu milliard bu rees maanaam sàcc gi ñu sàcc noot gi ñu noot dafa doy ñu jël suñu askan ñu doole yi tëj leen jël ay milliards boobu nekk na ñoom ñu ngi as ñu ngi lekk xaalisu askan trop Macky Macky Sall doy na troisième mandat askan bi ñoo ko suuf tëj suñuy jàkk kere ñu xiyaamu léegi lu mel ni koor ngeen tëj ni fukki fan yi mujj kenn naa fi lewul boobu dafa foo te man duma leen ko musa baal te sénégalais kenn baalu leen Macky troisième mandat warul bokk duñ ko bàyyi mu bokk daf ñuy jaay dañ koy jaay suñu bakkan lu ko jaral jaral lañ ko parce que réew bi moo ñu yow lu ko jaral jaral la kenn ragal bu yeboo nañ ñu tëj jël si mais dañuy fay suñu dëkk moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor mais lan mooy lan la la nii Con rút lành nè Bắt tụi tôi nè Maki dai dai ko kalam kalam lay fowe rasay ma zero roy lenen ko population bi đây ñu rok day forte mais dinañu fi fet Yeah. le troisième mandat def day napp Sénégalais yi léegi suba ñu ngi koy ci moom génn ci moom créé mouvement jàmmaarloog moom xeex ak moom ba 2024 fas ko fi jëlee moom ak njabootam ak ñi nga fi wër yëpp ñu génn ca xaj loolu moo waral tey ñu ñëw fii ànd ak ndaw yi ànd ak waa Parcelles Assainies ñëpp ñu ngi fii tey ngir xeex ngir wañ seen contentement ci milliards yi nga xamante ni tey Covid 19 bi dugal nañ ko fi plus de 1000 milliards ñu def couvre-feu di nalaloo nit ñi di ndakate booboo ñu ngi sàcc su alal di ko pasar pasaree ndaataat teelu gu ndaandaat loolu na tey jii moom la ñuy xeex moo tax peuple bi ñëw fii ngir xeex li nga xamante ni Macky Sall yàgg na ko def ci lu dëgg yoon moo waral suñu teewaay fii ñun.

Ah, dama dégg ñu ne foo Covid bi dañu sàcc suñu xaalis te loolu képp kuy sénégalais war nga ek jóg si loo mënti jàpp nga bàyyi li ngay jàpp nga ñëw fi ndax parce que xaalis boobu xaalisu sëñ Mountakha Mbacké mu ngi ci suma xaalis a ngi keneen a ngi ci lii dafa ñaaw même bu xaalis bi mag ñi ci dee am na mag ñoo xam ne woon ñu ngi ci seen kër suñu waxee dem leen hôpital duñ dem ndax dañuy ragal Covid bi ñooñu ñëpp dee ci Covid bi affaire bi du xaalis kese li ci metti li ci me li ci gën a metti mooy nit ñi ci dee sans xaalis mais ñi baaxuñu amuñu ngor lii doom kuy julli kuy doomu aadama rek daf la war meti metti te Macky ñu ngi koy wax su bëggee jaa ci ay bakkan na wax troisième manta loolu duñ ko nangu ak nu mu mënti def dañuy rey ba pare soog a nekkat président te lii suñu xaalis dina ko génne ku ci jël doom bu gën a tuuti ni nga ko génne loolu lañ koy xamal. yaakaar ngeen ni dina ko génnee puisque gouvernement bi nee na liñ ci génnee liñ ci génnee matul sa lu mat un pour cent. loolu ay ay dañuy nax nit ñi rek ndax parce que vendredi prochain ñu jël seeni ministre yëpp yóbbu lañ ci tale yi foofu ngay xamee ni dañoo njublan état bu normal buñ la euh, jàppee da nga dem ci yoon nga setal foofu mais doo wër ci plateau yi di setal sa bopp li dafa usulu dafa ñaaw nit ñi liggéeyuñu nit ñi lekkuñu nit ñi naanuñu ñun ñëpp dañ bàyyi suñuy bagaas ñëw fii suñuy métier dañu am suñuy métier am suñu lépp est-ce que comprendre nga c'est ça xam nga xam nga loolu lañ bëgg loolu loolu lañ bëgg quoi sincèrement ñun dañu dañu am dañ am mettit dañu am mettit bu baax a baax dañu am lu ñu metti am xamuñu sax li ñuy wax mais dafa am lu ñu metti bu baax a baax. salaamaaleykum sëñ. man Babacar Seye. Rufisque man ak sama waaw mbir yu bari. muy benn Pa Pape Alé Niang Karim Xurum Xax ak ñeneen ñun jàpp comme samay morom parce que am na ñoo xamante ne jàpp nañ leen bay bi ñu leen di jàpp bokkoon naa ci marche boobu ñu tuddee leen ay terroristes ay yu kenn xamul man li ma li ma li ma naxari du ay affaire de sax Cour des comptes bi li génn nii parce que ñun dès le xam nañ ni Macky Sall bi mu ñu waree rek yàgg na donc affaire xaalis bi ñun taxuñu ñu xeex. bok man ñi ëpp ci man ci man taxul ma xex man li tax may xex mo injustice li lalu ci parce que yeen ñi buñu leen buñu leen dof dof lo ba ñak leen yeen journaliste mooy ñun ñu ndariñ li ñi xex amul sens ki relier suñu metit suñu njaxare suñu naxar ci dëkk bi yeen la te ñom la japp ci dëkk bi bab ala ñaan lim ko téewu ko dara ba paré gaay ñu ngaan japp japp ko dé dañ ko kidnapper parce que un sénégalais lambda comme man bo may jël sama kër sax di may indil mandat dépôt au moins ku mel ni Pape Alé xeexal Macky Sall invité ko moom mooy premier journaliste bu invité Macky Sall ci teleem veille élection élection yi ñëw Macky Sall mu defaat la même sos ci Macky Sall donc Pape Alé du ay problème mu Macky la faral wala Sonko la faral ñun on avec Sénégal man gars yi ñaan pro Sonko Sonko suba bu ñu doon voté ma votel ko mais du Sonko la àndal Sénégal couleur bi laa àndal kii moo ma tax a jógee Tëngéej laal terre bi nga xamante ni moom laa gën a détesté sama àdduna te kii wax naa ko kii ndax bëgg a teel a yegg si di ñaan yàlla na yàlla defal ñu jàmm ñu fi ñëw ñoom dañ fi ñëw pour wan Macky Sall ni ko ñun peuple sénégalais ànduñu ak moom ci ni muy gouverner mais pas ni ñuy sàccee xaalis waxuñu loolu nii muy gouverner pour boole lépp ñun loolu moo ñu indi fii di ñaan yàlla ñu ñëw fi jàmm joxe suñu suñu message ñibbiwaat ci jàmm di lancer appel nag suba la le 31 décembre bool coquette casquette ku ko am fëgal ak loo mën a fëggee maa ngi dégg ay ay nit na ñu leen invité ci télé bi ñu naan président buy wax institution la non war dañ ko war di déglu déedéet institution bi bala ñu ko wax nañ wax sénégalais ñun ñooy institution ñun ñooy càttum réew mi ñun bu ñu amee lu ñu naxar suñu réew ñun ñoo koy kaas du ñu génnaat fi ñu ñuy rey li ñu rey ci doomu aadama yi nga xam ne dañuy marché ndax lu leen naxar rek mënoo koo compter dégg nga nag Sonko génneel nañu idée bu set wecc mooy toogal sa néeg yor say bool di fëgg kenn loo fa fekk la jàpp la tëj wasalaam loolu laa amoon ci lu ma wax Babacar Seye from Tëngéej Yakuba ila yomi dinila. Yakuba ila yomi dinila. Yakuba ila yomi dinila. Ah ah ah ah ah.

une cinquaine, euh, une, euh, un quinquennat quand même, je peux dire. Parce que ça fait cinq ans que je suis dans le dans l'activisme. Voilà. Euh, ñu bëggoon xam tey lan moo la indi fi nga xamantene moy place de l'Obélix. non tay luma ma indi euh, lu ñu bokk la ñun ñëpp parce que bu ñu demee ba wax ay milliards ñu sacc si caissum réew mom yaakaarna ni bép sénégalais la concerne muy mag muy ndaw muy ko xamni ne sax juddoogul parce que c'est héritage lañ jël donc bon je peux dire que bu ñu jëlee ay milliards jël lañ ay rêve ay rêve de de millions de sénégalais jël nañ ay rêve ay rêve étudiant jël nañ ay santé parce que sàcc nañ santé nit ñi kenn amul kenn amul wér gi yaram au lieu nga jël xaalis boobu nga sàcc investir ko si hôpitaux yi nga jël ko du ko dugal sa poche di investir sa poche man yaakaar naa loolu du warul warul njiit quoi en réalité parce que boo demee ba nekk njiit dama yaakaar da nga war a sacrifier tout pour pour sa askan comme lu John Fitzgerald Kennedy di wax dafa ne ask not what your country can do for you ask what you can do for your country dafa ne yow ndaw réew mi xalaatal lan nga meunal sa askan waye bu mës a xalaat sa askan meunal la la nguur meunal bu ko mës a xalaat te lolé la ñom Cheikh Anta Diop doon xeex ñooñu la Wame kuruma doon xex te man yaakaar naa ni senegal lenn manqué ko lu dul valeur valeur bobu nak mo top ñak valeur bobu mo top suñu njiti ñak valeur bobu mo top sax xalé yi mom wax aliénation culturelle la Cheikh l'aliénation culturelle finit par être une pratique intégrante de nous-mêmes de notre substance et de notre âme donc loolu la a aliénation boobu jëlee fi tout bi parce que tout tubaab nous sommes fi en réalité mais mu ngi suñu xel yi bi mu ngi changer handicap parce que bu liiree rapport cour des comptes xam ni ay milliards am lañ jël mom si dëgg rek la ci am mais dama bëgg mu gis ko gis signature yi loolu laa bëgg donc dañ jéem a changer langue nationale bi jéem ko def làkk boo xamanteni ne ñëpp dinañ ko mën a comprendre ñëpp dinañ ko mën bind tey kuy demander autorisation sax def xew mu bindal ko boppam soxlawul muy dem si koo xam ne université la ne wala euh, fonctionnaire la loolu laa gis te loolu laa bëgg réew mi ëllëg ñu doon réew mi nga xamante ni science moo fi existé te science pour mu existé fi si yéen laa koy sas yéen ñii di journaliste yi si plateau yi ngeen teg fa les vrais débats les vrais débats mooy lan d'ici deux mille cinquante naka la africain mën a demee ba accéder si lune bi def lu raw nee la Armstrong def ma loolu laa bëgg loolu la Cheikh Anta bëggoon te damay te damay lu may digal ndaw ñi mooy nañ nañ lu may lu may digal ndaw ñi mooy nañ gëstu nañ nañ nañ gëstu baataxalu Cheikh Anta yi ñuy fi bàyyil lu si waral nation nègre de culture civilisation ou barbarie ak leneen ak leneen. li si waral les fondements économiques de l' Afrique fan la Afrique mën a sukkandiku pour mën a développer koom-koomam ma loolu laa mën laa gis te loolu bépp ndaw bu ko am de réveiller si yow patriotisme ba ëllëg bu ñu la joxee nguur gi doo sàcc ay milliards comme ni ko gars di defee ma loolu rek laa gis. leneen ak leneen muy Macky Sall muy keneen ak keneen noonu ñooñu perdre nañ leen ba pare Macky il est mal placé pour di sàcc suñu alal mais euh, Senghor o peut concevoir Abdou Diouf on, son, on peut concevoir Abdoulaye Wade parce que ñooñu ay élément tubaab bi lañ mais Macky 1961 la Macky juddu il est né après l'indépendance. indépendance fekkeewul bu dégol di ñëw fi taxaw ne je m'adresse aux porteurs de pancarte pancarte donc mom mo wara a tok xol ni Sénégal am na difficulté mu jéem xol xool lu ko avancé mais pas muy jël ay kat di len investir di len teg ci poste yi man lool la gis et en réalité comme nous ko waxé won rek nañ investir ci science jéem inculquer xalé yi la bonne éducation wax une vraie histoire aussi vous avez une vraie histoire Vous avez ni Christophe Colomb du découvert découvrir l'Amérique, africain a découvrir l'Amérique. c'était Abou II la première constitution a été écrite par un noir en 1236 c'était la charte du Mandé loolu naka avez yi Pourquoi? bu ko vous di nga xam yow sa valeur nga xam yow aliénation culturelle Bob, di nga maanaam di nga boo xoolee sa der di nga fier si li nga doon parce que di nga xam ne nit ku ñuul moo sanc monde bi moo sanc adduna bi en réalité boo bëggee dégg-dégg même jaamu sax yu tubaab bi di jaamu boo demee ba si biir da xam ne lii am na rapport ak lu daan jaamu bu njëkk ba donc loolu maa ngi koy bàyyi sama mbokku étudiants yi sama mbokku chercheurs yi ñu dem xool ba xam gën a càmbar mbir yi xam lan mooy difficulté Afrique en temps moderne parce que Cheikh Anta bon certes anticiper na si temps bu ñu nekk nii mais nañ xool temps moderne bi ak ni ñuy anticiper temps yu ñëw bon même bu dul ñoom bu taxul ñoom ñu def justice mais peut-être milliards yi ay xam ay ay ay ndimbal la woon dañu ko doon jox rek diñu ko diñu diñu diñu ko diñu ko jagleel ndimbal même ñoom bu ñu recevoirul message bi ñu defoon ndimbal bi nañ xam ni kat jàppale bi ñu doon jàppale sénégalais yi demul fii te boobaa ñun lay handicap boobaa ñun lay handicap parce que ëllëg parce que réew mënul avancer moom kese nañu waxante dëgg milliardaire ñu ne si ñeneen ñooy tax mu avancer parce que état yorul dara loo xamante ni tax ab développé on se dit la vérité même États-Unis est le pays le plus endetté du monde vous voyez malgré qu'il est la première puissance mondiale ou bien il fait il fait partie des premières puissances mondiales donc Macky lu muy def nii nekkul lu di gën a suuxal valeur sur le plan international surtout parce que tubaab bi essayé ñoom comédie sax la def finalement on se dit la vérité comédie la def mais nous nous sommes ridicules on se dit la vérité

bu defee lu yoon nga teg ko yoon waaye ku ànd ak lu mu def lu mu rëy rëy rëy la wax dara ku la ku ànd ak yow mu def lu rek nga wax si sas gi loolu boo for a jógee loolu daal moom doon naxati loolu une milliard yi ko génnee jox ko ñu loolu mooy yoon. ku wax lambaay nag da ngay wax bawal ku wax bawal yaa ngi question monde rural u Sénégal donc ñun ci kaw gi xam la ñuy daj ci wàllu faj. lan la ñuy daj ci wàllum njàng lan la ñuy ay yoon dem ak dikk xam la ñuy daj ci wàllu développement ñu leen xaalis boo xam ne sénégalais yi ñoo ko dajale jox ko ñi nga xam ne ñooy autorité yi ngir ñu liggéey ci luy jariñ réew mi xeex noonu réew mi ñoom ñu jël ko di ko ci seen biir te seen ay organe ñoom ñoo wax ne lii am na ak duubal ñu ñëw nag ngir woo leen justice am ci ñu fexe ba suñu xaalis boobu ñu duubal ñu andiwaat ko non seulement ñu delloo ko ndax sénégalais yi soxla nañ ko boo demee ci ci kaw gi tey jii nit ñaa ngi am problème mu lekk ñi ngi am problème mu faju ñi ngi am problème mu éducation di am problème lu mën a doon nga bëgg a ay milliards ñu naa la dem na ci kii ak ci loo xam ne ni ñi ñoo ko dajale loolu loolu la ñuy jooy ngir bëgg vraiment xaalis boobu ñu andiwaat ko non seulement ñu andi ko mais ñu teg ay daan ñi nga xamante ne bii tamit ñoom ñoo jël xaalis boobu wala ñoo def luubal googu te ñoom ñu wax ko ñu fexe ba teg leen ay daan yoo xam ne dina nekk exemple ci ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñoom la ñu dénk askan wi beneen ba des beneen message boo xam ne ñu koy lancé Macky Sall ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo topp si ginnaawam ne leen lii benn combat la mais question troisième mandat aussi na xam ne du fi am pare ñu tey pare wuñu ëllëg ngir di ko bàyyi ñuy dirigé waat réew mi ci muxum yi ñoom xanaa dañoo bëgg 12 ans lañ dirigé muxum yi yëpp xanaa buñu leen bàyyee ak réew beneen yoon dañoo bëgg ñu ray na suul ñu loolu du fi am du am tey du fi am ëllëg dëgg ngir dëkk ngir mu dem ci kanam ngir mu amuk dal faawu day tege ci maandu akub dëgg maandu ak dëgg googu nag moom la kenn gisatul loolu moo fi mobiliser nit ñëpp ñu jóge fu ne ngir dëgg ak maandu lal suñu réew ngir ñu mën a dem dabi suñu moroomi réew yi Sénégal tardé na yëpp raw nañ ko te kenn ëppuñu ay ressources kenn ëppuñu possibilité mën a avancer li ñu ko mooy ay njir yu jub njir yu baax kese moom la ñu amul te tey jii buñ ko amoon Sénégal weesu na fi mu toll Sénégalais yi nag muy jeunesse bi li nga xam ne moo daan am léegi c'est révolu jëlatuñu suñu avenir di ko tayle di ko bàyyee kenn mu koy def lu ko neex tey jii képp koo xamante ne bii yaa ko jël duggatuñu ay gaal comme ni ko bee bi wax dematuñu fenn dañoo bëgg a jël suñu réew te suñu destin ñu téyel ko suñu bopp fexe ba Sénégal li ñëpp jot li ñëpp moom ñëpp jot ci du ko bàyyee ken wasalaamaaleykum wa rahmatullah ma dool ci lu tuuti ma dool ci lu tuuti te bariwul mooy Omar ibnu Xataab non pas Omar ibnu Xataab ah, Ababacar Sadiq biñ koy doog a faj xilaafa gi dafa def déclaration daal taxaw daal ne yéen ñëpp maa ngi leen dégg sama loxo bàyyiwuma kenn lii ngeen ma xam ne yéen ma koy teg sama kaw mi mas aulia bu ngeen ci gisee loo xam si ni du ma jubbanti maanaam bu ma dëngalee na ngeen ma jubbanti maanaam loolu boo ko jël Macky Sall tey ji Macky Sall loolu foofu la war a taxaw mais boo làqatu woon sa biir rek di ko critique sax yow am nga problème gars yi faral la fekk trop ou jël la yóbbu la jéem te loolu du yoon dafa war a jeex xoolal réew mi ñoo ko bokk il faut ñuy wax li ñu métti ci réew mënul ñàkk mu neex Macky Sall amu naqare ko li nekk ci mi dañ koy wax par force. un milliard bu wees loolu rek mooy taxaw bu accompagnant ñu ne dafa am bu ñëw fii di keneen Serigne Moustapha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg tawér mu joxe deux cent millions yéen journalistes yi ngeen joxe seen xaalis mu mat mille milliards boo xam ne motuñ dara tolloo fukki personne si sénégalais yi ñu aati moo ko bëgg koo lekk ba pare si dëkk yoon la nekk xam nga ban yoon moo fi am si dëkk bi yoon bi oto yi jaar mais yoon bi nga aatee nit ñi amu fi ndax jaay doole bi si dëkk bi jàpp nañu bi tëj askan na wax nga jàpp tëj ba ay askan di ko sàcc ba pare na bëgg ñu joxaat la beneen mandat bu nekk deret di tuuru moo gën suñu drapeau bi di tuuru comme ni ko waykat bi waxee woon xam ñu ko sax même bu ko amul droit ñu jox ko ko quoi képp ku ko validé na nga jël ses responsabilités xam ne après kaw lay wàcc nga daf ñoo jaral lu nekk nag ñu mi ñoo taxaw pour defar ko te far

Macky Sall di doxee nu ko neex si réew mi ñëpp taxaw di fu mu toll nii instant yi réew mi dafa yàqu boo bëggee am problème rek waxal dëgg bis boo waxee dëgg nga am problème si côté bépp côté journalisme affaire de sëriñ jàngalekat yi ñëpp képp koo xam ne taxaw nga pour wax Macky Sall dëgg jàpp na yaa ngi si fitna donc médecin la ñuy jàpp pour jëm ko ray ngir laan dafa wax dëgg ah kon ñun ñu ñëpp ñoo ngi si risque mais Sénégal jar nañ dee instant suñ dund bi bu fekkee mënuñu koo defar bari njëriñ lañuy dund fii ni buñ mënul defar suñ dund bii ni instant yi ñu nekk jeune war a dund normal léegi ñu taxaw ñu ñuy noot ba pare ñu ne patali kii xoolal mënatul nekk bii dañ ko war a arrêté doomu bët bi dañ ko war a arrêté ndax nit ñi ñoo ngi leen di rey ñoo war a arrêté noonu ngeen jëf tey li ñu fi ne xamal la la Macky Sall dictateur sàcc suñu loo wax ñu tëj la ku bokk si moom loo wax ñu tëj la ku bokk si moom kenn du la tëj mais de rees Macky Sall dañoo bëgg ni ko suñu milliard na ko jënd si nii wala si nee di ko dara te ñu ne moom fu mu jënd neex troisième mandat bu ko sax jéem nga bàyyi leen tëdd ni politique yi ay xale lañ barki alxuraanu kan ñu ci bañ a bañ ñu ko dañuy jóge incha allahu rabbi te on est maximum suñu milliard ñu res xaalis bi kenn du ko sond kenn du ko moo xam sax day génn ndax ñoo ko moom ñu population Sénégal dëkkalu politique yi na leen bàyyi Macky Sall ba war a bàyyi dëkkalu politique yi ñu jàpp di leen tëj man quartier bi ma dëkk amul dara ndax Macky Sall na si musal sàcc la international jàpp dëkkalu politique Abdou Karim Gueye Khouka Cheikh Omar Diagne Papa Alé Niang na leen libéré dañoo sonn ci moom Macky Sall ay quartier jëlee ko fi ñun ñoo ko fi jëlee ñu population Sénégal suñu yaay yi dañoo sonn ak suñu papa yi yaay yi dem ay dëkk yoo xam ne amuñu ndox amuñu courant ñuy sàcc suñuy milliards dañoo sonn adama Macky Sall loolu fi am

manam bu doon mané dama ni aw jiw la moy jiw nguuru Macky Sall moy lubal donc kep kuy lubal nak maxal rek la mëna andal mais maxal Sall programme problème moy dal andou ku c'est tout lo rek la maki ku jub rek la mënta andal lo mëna jël lu mu bari bari 94 29 o 118 problème li tax ni voilà def nuyu nañ leen man nag boo gisee ma tee fii jeunesse bi moo tax ma tee fii ndax jeunesse bi la bëgg bu lu mel nii amee ñu génn ñu xam ne ñoom la ñuy xeexal li tax ñu di leen xeexal ndax seen avenir la ñuy xeexal li tax ñu di leen xeexal ndax li nga xam ne ne mooy suñu koomu réew tubaab yi ñu koy jël si fii di ko yóbbu ci seen réew yi di dund dund luxe tubaab yi not fekk suñu fii di ñu liggéeyal ñoom ak naar yi ñoom ak chinois yi bi ñoo war a fan la ñu ñi war a dem ñi nga xam ne ñoom ñoo luubal suñu ay milliards ñooñu ñoo war a gën a ci biir kaso ñi lekk suñu ay milliards te milliards yi du rees ñooñu la ñu bëgg ñu dem ci kaso bi te loolu la ñu wax gouvernement Sénégal mu doxal recommandation yi nga xamante cour des comptes def cour des comptes ay magistrats yu jàng lañu am xam-xam man seen liggéey nekkal fi sénégalais ak askan wi donc liñ ñu won ci li nga xamante ne moom mooy recommandation yi suñu milliards yi nga xamante ne sénégalais yi dañ ci ñàkk sonn génne ku nekk gërëmam ngir ñu mën a xeex li nga xam लीग लीग से कमोई लीग देख लीग जिसको सेनेगाल लीग वर लीग मोई लीग जुगता हाउ जुगता हाउ पूरी का बेन सेनेगाल डू फले का दी मिलिया दी कुलूबल लिटा लिटा हाउ की ताई मोई लीग को सुनिया मिलिया लीग बुलें चिका सो भी मोगन लीग जल पाप आली ना दी को दुगल चिका सो भी दी जल ये ने मिलिया जो हमें तेरे सेंट प्लस मिलिया चिमिटी दिलन दुगल चिका सो भी लीग ये li journaliste yi def Sénégal ñëpp gis ko ba deux mille vingt deux la ñu fekk Abdou Diouf fii la ñu bàyyi Ablaye Wade fii la ñu bàyyi Macky Sall fii la ñuy bàyyi journaliste yi des li ñu bëgg mooy.

dama bëgg ngeen tàcc bu baax journaliste Sénégal yëpp seen loxo ci kaw est-ce que mën nañu tàcc journaliste Sénégal yëpp seen sànq jàpp ni combat parce que ñun ñu ngi diaspora ay doomu te ko fukk man tey dama am ci suñu njiitu Sénégal yi parce que tey dama jàpp ni Macky duma ne président Macky Sall Macky Sall laay wax en tant que sénégalais duma jàpp ne Macky Sall sa yaram war na daw soo xoolee ni Gobar Dias baa ngi rey Sénégal cere Birane Dias cent franc mi ngi jar léegi deux cent deux cent cinquante fonde Birane Dias cent franc mi ngi jar deux cent cinquante léegi nambe cher na jën cher na yàpp cher na kecax sax cher na waaye yow xanaa sa yaram bu daw yow mi nga xamante ne yow doomu Sénégal nga fi nga màggee jubóo fi yaroo fi tekkee fi nga gis Sénégal nu mu jafee dund te yàlla dimbali la ba nga nekk président te ñun ñii jeunesse bii ñoo la xeexaloon te jamono ba ngay jël Abdoulaye Wade waaye tey jàpp ne dañ lay fay sa bor ndax yaa nga sàcc suñuy ay milliards yow sa gouvernement tey war ngeen ruus waaye jàpp ne di ngeen ko gox ndax da ngeen yokk loo xamante du rees léegi nag sénégalais li ma leen di mooy yéen jeunesse bi. kenn ku ci nekk massifier leen seen ay mbokk seen biir kër ba ku ci amul carte d'identité dama wuti carte d'identité parce que loolu mooy la guerre la vraie guerre la vraie arme de la guerre ce sont vos cartes d'identité yooyu ñëpp kenn ku ci nekk wuti leen seen carte d'identité waaye bu ñu bàyyi ñii nga xamante ne mooy suñu njiit ni ñuy jëm a jaarañ si ay naxee mbaay naan dañ koy jox kii wala kële ba ñuy def séjour nañu exiger le président mu séjour automatiquement léegi léegi léegi parce que suñu milliards ñu ñoo ko fay ñu ngeen may ma tuuti ma wax ko en anglais parce que lii wax nii dafa importé sénégalais waaye dafa importé opinion internationale bi ladies and gentlemen from Dakar to America. Me, Horeshi Cham, son of Senegal, son of Africa. I'm calling everybody to listen to me. This is very important. At the time where all the Senegalese, they were just crying, hiding under cover. At that time when the darkness of COVID-19 hit the Senegal, at that time, Senegalese, from the sellers to the religious, everybody put their money one by one to give the money to our president, Macky Sall. And at that time, when they give it to the money, their money, I'm not calling him president. I say, that man, Macky Sall, that man and his government, they did not think about helping the Senegal. They were thinking about taking their money for their own self. And that's not right. They are corrupted. They corrupt our money. They're not Democrat. Why I say they're not Democrat? Because today we have Papa Alenya in the prison. That's not right. In America, the first and one of one of the right of a freedom and democracy is the freedom of speech. And in Senegal, we don't have that. And it's time for you guys. I'm letting you know. You guys are investing your money in Senegal. You guys are, invest, are bringing your money in Senegal to invest and trying to find something to make it for, for your country this is not the right time because we don't have a right president from Senegal right now. We don't have the right president. Lucky Sally is not our president right now because he's stolen our money. That's why he got to give our money back. This is time for all the Senegal to wake up and fight for the right of Senegal. at Sally, give us our money back. We are tired. We are tired. It's time for Senegal everybody together. Those people that are in the house, those people that are in the market, those people that are in the mosque, it's time for you to wake up. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yaya Sise, Sheikh Umar Gang.

Hassan Dramé libéré Hassan Dramé Ibrahima Diédhiou Abdoulaye Ndiaye Babacar Ndao Pape Ousmane Seck Madické Diop Abdou Silla Bouna Ba Yaya Cissé Cheikh Omar Diagne Abdul Karim Gueye Papito Kara Ousmane Diagne Abdul Aziz Niang Abdoulaye Dione Ndongo Diop Usman Diatta Fadilu Keita Diop Taïf Pape Alé Niang Ndeye même tour bi nga fi gisoon masata gaañu bu loolu weesoo man vraiment sama kàddu du gudd ñi fi jàll yëpp ci ay sénégalais wax nañu wax ji mu njaay wax na ko balaa maa wax du rees dama bëggoon juste ngeen tàccu mais vraiment standing ovation a la cour des comptes ak magistrat yi fa nekk ak liggéey bi ñu def gaañu ñun ñoo war a doon bouclier wu cour des ñi fa nekk ñuy ay citoyen yu diin ñu def liggéey bu am solo bii li may def rek mooy damay bamtu ci wolof exigence yi nga xamante ni mu njaay si se posé na ko en français muy ay exigence yu forte yi nga xamante ni fii la satisfairuñ ko suñu xeex bii day wéy mooy premièrement la démission ñepp ñi nga xamante ni laale nañu ci bir mi que ñu démettre leen de leur fonction le plus vite te amul ay ñëw fi di naan ay daaj rek ah bu naree dem ba ci ministre ba ci keneen ak keneen nañu ko démettre de ses fonctions c'est une exigence du peuple sénégalais deuxième point bi moy nañu fexe ñi loubal xaliss bi nga xamanteni ni na dem ci askan wi ci mbirum Covid boobu. que ñu gox ko li mu gën a gaaw loolu tamit beneen exigence la bu forte bu peuple sénégalais sunuy milliards du reese noonu beneen bi nag mooy Cour des comptes def na ko ci rapport am mooy l'ouverture d'une information judiciaire bu dee opposition politique la bu dee activiste la bu dee ñun sénégalais la yi nga xamante ni léeg-léeg gànnaar rek ñu sàcc justice bi day daal di gaaw. waye bu ñom la justice bi di layam layam comme ni dambo di waxé donc ouverture de douze informations judiciaires au moins et enfin libérer Mamadou Niang voilà et pour terminer gagne, lolu yëpp pour que peuple bi mu xam ni liggéey bi war ñu koy def il faut pas que ñoom ñu def ko ci seeni biir rek il faut que ça se passe en toute transparence pour loolu il faut que mu comité bi nga xamante ni ñenn ñi dinañ fa toogal askan wi pour que ñu saytu est-ce que ñu ngi def li war est-ce que nangu ngeen ko jaa ngeen jëf loolu laa indi woon ci ay ponk li premier acte la déglu leen ci fan yi di ñëw allah voilà incha allah ci fan yi di ñëw dinañ defaat conférence de presse pour wax leen xeex bi fi mu jëm fii ak exigence yi état bi satisfaire ko bu soobee yàlla duñ ko bàyyi fii ak libéré wuñu prisonniers yi duñ ko bàyyi.